la dafa une division dafa am ñoo xam ne ils c'est que euh, dafa frustration bu am ñoom dans la même famille mais considéré wuñu seen bopp ko dañu leen téye comme ni ñu téye ñële man mun naa ko illustrer si benn exemple mhm. tey jii boo si technicien yi y a combien d'écoles au Sénégal française mhm. dañ la koy jox chiffre à la seconde ngay abri provisoire mhm. dañ wax ñaata moo fi nekk quand tu le demanderas ñaata dara ils te le diront jamais et, ce qui est important ni nga commencé sëñ bi c'est important mooy mhm. waxtaan ba euh, moo gën moo ba jële jeng parce que à l'instant où je te parle nii ce qui est évident quelque part dans le Sénégal am na xale bu ñu jeng certainement oui les gens am na ñoo xam ne yëguñu sax Ndakaaroo ngi toj pour ay euh, jàpp nañu ay sëriñ ay y a des gens qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Mm-hmm. donc gis nga waxtaan boobu mooy mooy mooy mooy mooy base bi euh, euh, sama nijaay. alors nañu dugg waxtaan la solution c'est la ah. modernisation des daara exactement léegi. Ah. yow la solution mais modernisation. non c'est relatif. waaw ah. justement justement c'est important li mu wax am na solo li li mu wax bi am na solo. modernisation ba daan nañu ko teg ñoom. déjà idée bi yàgg na. mais bañ ko tàmbalee les accords biñ koy signé c'était en

mais mën nañ créer des daara modernes à l'instar de ñun ni ñu koy defee mais su boobaa y a des programmes qui sont là. Mhm. y a un curriculum qui là. y a des formations pour enseignants yi nga xam ñoom ñooy dem ci daara moderne yi donc loolu yëpp dangay ngay ñëw rek arrivé wu ci. Mhm. donc modèle bi taxaw na su boobaa mën nañ dem sax ba yaakaar ne xëy na daara cosaan yi ak jafe-jafe yi ñu ko xamee woon. Mhm. dinañ dem ba évoluer. alors non pas que du amati. oui mais day évoluer. Diouf tontu nga ci laaj bi kon pour yow solution bi modernisation la sëñ eh, sëñ Mame Cheikh. pour yow mhm. solution bi lan la. non solution bi du modernisation kese. solution bi dëgg mooy li ñu wax léegi. constitution bi faaw ñu xoolaat ko bu baax a baax a baax loolu loolu loolu muy wax mm-hmm. ndax tamit mënuñoo nekk ci benn réew. Mm-hmm. ñaari doomi Sénégal nekk fi kenn ki ñu ne bu dee jàng la mu bëgg a jàng muy alxuraan wala wolof langue wolof sax amul fenn fu ñu ko garantel amul mm-hmm. fenn fu ñu ko garantel donc li ñu garantel ci ci constitution mooy français kese te njàngum alxuraanu karim kenn du wax demande sociale sax mais dafa nekk culture sénégalais yi mu nekk loo xam ne loom loolu lañ bëgg fi mu toll suñu xaalis ngay ñu jàpp ne tey boo doon def micro comme ni ñu daan jàpp politicien nga xam dañ naan ñi nañ nañ ko tëj nga xam boo xoolee da ngay gis ñu bare bare naan nañ ko li ñuy wax mooy état bi ci jëm boppam moo war a xoolaat ay doxalinam mm-hmm. ci mbir mi mooy fexe ba euh, ñu garanté ni ñu garanté école français yi maanaam ñu am ñu am euh, maanaam li ñu mën tudd situation jël leen lépp tegal leen ko loolu la ñu war a ñëw ci def bu ñu ko defee daara yi moo gën fuuf boobaa sori waaye daara moderne ni moom wax dëgg yàlla loolu moom li ma la wax moom. jërëjëf jërëjëf euh, Mame Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba <laughs> jërëjëf Mamadou Mboy Diouf tontonte nga depuis sànq la yokkal sa budget juste Pape Djibril Fall mu wax sànq. Ah. man euh, jaaxal na fi ñu jëlee information boobu. Euh, mooy les ambassades là. mais man man man man preuve du contraire je pense que loolu mënul nekk te loolu amul. merci kii laay remercier nu mu tuddati Niass. Baye Niass ah. Baye Niass pour vraiment réactivité bi moom moo génn très rapidement. jëlal ñu image boobu nga xam ne mujj na nañ leen ko gis-gis. bi euh, Sonko moo jiite partie PASTEF euh, nee na blanchiment d'argent assemblée nationale dafa am te yaakaar yaakaar na ni euh, blanchiment de drogue nag xanaa yeggaguñ fa wax ju rëy Charles Faye. sub subhanallah. waaw Charles Faye sax nee na subhanallah <laughs> alors Pape gis-gis. Sonko dit qu'il y a blanchiment d'argent à l'Assemblée nationale. man de wax dëgg Assemblée nationale li may xaar ci moom mooy contrôle action exécutif et que lillahi wa rasul yenn yi nga xamante ne dañ koy yëkkati. parce que du moom rek moo njëkk a wax drogue encore une fois le vice président wax na ne drogue am na fi. yu mel nii nag dafay laaj euh, ay commission d'enquête pour que ki ko wax ñu déglu ko mhm. wala ñi ko wax ñu déglu leen su fekkee ne am na ñu ne sénégalais yi am na parce que loolu mooy rôle assemblée nationale mhm. su amul ñu ne amul mhm. ale Papis waaw Sonko de il est dans son vrai rôle d'opposant xam nga il a été le premier à dire que même étant député que xaw même député sax dañu fay impôt <laughs> dañu fay impôt ça c'est c'est du Sonko c'est allez Malal à toi. yes bon je pense qu'il euh, euh comme ni ko Papis waxee il est déjà ci benn posture opposant mais en même temps toll nañ fi nga xamante ne aussi ci dëkk bi quand des gens avancent des questions comme ça surtout en ce qui concerne l'Assemblée nationale. dëgg suñuy député nekk fay ñu ñu fay représenter ñuy voter suñuy budget il est important qu'une enquête soit ouverte. Bouba. Euh, bon accusation yu yu assez grave là je pense que ya a beaucoup de choses peut-être dañuy dem ba finalement dañ koy banaliser fekk c'est c'est extrêmement grave je pense que euh, Sonko amul amul puissance wax lu ko neex te du ko ci fekk mais aussi assemblée aussi amul puissance su def lu ko neex te dara du ko ci fekk donc je pense que euh, lu mel ni su génnee warul nekk passé inaperçu quoi parce que quand même député bu nekk ci biir foofu tey jii nii bu ñu toogoon ci plateau bi ñu ne am na kenn koo xam ne day day blanchir xaalis wala day jaay day jaay day jaay drogue voilà dig nga jëm quoi donc je pense que lii moom mm-hmm. euh, rëy na de alors euh, sëriñ bi mm-hmm. ban gis-gis nga am ci waxu Sonko bu fekkee ni li mu wax <coughs> lu am la moom ñëpp a jàq ñëpp a jaaxle ndax député ñi war a woote loi ñi nga xam ne ñoo war a tinu askan wi ci war a jubbanti ñi dëng ak ñi def naa nga bu demee ba ñoom la ñuy wax lu mel bu fekkee ne am na moom ñëpp tiit ñëpp a jaaxle loolu nag li ñu ci wax rek mooy réew mi ñun ñëpp a ko bokk saa su ne nag gars yi ñu bëgg a rek ci diine ji waaye ah dañuy wax yëngatu politique nag. Ah, wax bu baax a baax a baax. Ah, ndax réew bu amee ah, jàmm ñu maa ngi ci askan daal. ànd ak askan wu daal waaye daal en tout am na bu fekkee loolu am na. sa gis-gis en tant que membre du bureau politique du parti socialiste moi je suis foog naa ne Sonko naa ne pas sa première déclaration. wax na fi waxeet na fi donc lii mënul bett kenn. Sonko lii ma koy dundal lii tax muy exister mais man dama jàpp ne ay sos la rek beneen sos la c'est son énième sos. bi ci topp. sama nijaay dafa bëri histoire bi ci topp allez Pierre euh, <laughs> l'autre gis-gis Abi euh, euh, Diallo nekkoon na fi commissaire ñu koy ziar. moom mooy léegi présidentu AJS mooy association des juristes du Sénégal criminalisation viol léegi. <coughs> siif jigéen ak yëkkataan laa ko mënoo yegg ci xale. Mm-hmm. jamono ji def nañ ko crime ku ko def ñu tëj la sa ngiru dund xaj na ci. ngiru dund mun nañ la ci tëj alors euh, moom nag mu koy rafetlu nee na lu ñu yàgg xeex la alhamdulilah biñ ci biñ ci yeggee projet de loi boo xam ne la jàll na conseil des ministres bi passé léegi assemblée nationale la dëgmal criminalisation viole pédophilie Bouba Ndour mais pour pour man euh, acte acte criminel bu nit posé rek mm-hmm. euh, daan bi la ci war a fekk hmm. dafa war a ànd ak sa acte hmm. acte bi nga def loolu c'est très important hmm. parce que même nit bi nga xam ne dafa dafa violé nit quand nit la ba léegi dañ koy teg yoon dañ koy yoon da koy daan mais dafa war a proportionnel je pense euh, méngoo ak acte bi mu bi mu bi mu posé je pense c'est c'est très important alors waaw loolu loolu baax na mais en fait ay méthode de protection des enfants yu gën a wóor parce que nous avons la cellule d'appui à la protection de l'enfance nous avons beaucoup de structures il faut que structure yooyu aussi liggéey bu baax a baax pour gën a mën dans la sensibilisation wax ak waajur pour que les enfants ne soient pas exposés Pape tous les moyens dissuasifs sont bons Papis criminalisation mais c'est xam nga dafa am dafa am jëf yoo xamante ne dans la vie. bu amee débat rek parce que leerul mais xam nga criminalisation pédophilie ak viol. amul sax ku koy ko sax bañ. parce que c'est abject c'est une dafa doy waar. pour revenir un peu def mais les gens en discutent. est que war na ko jéng pédagogie bi ni mu a jéngee ni mu <laughs> euh, Charles. gars yi la ñu bañ. Charles. nee na enfin Charles ci ci ñi ci ci ñi ñi laaj mu dëgër la bokk. alors en tout cas euh, man man dama foog ne sanction moom c'est toujours par euh, degré. Mm-hmm. su fekkee ne dañu yàgg a sanctionné te récidive yi continuer et que statistiques yi wane ne malgré sanctions yi ça ne donne rien mm. mais pourquoi pas augmenter la sanction donc si on en arrive à la criminalisation pourquoi pas est-ce que du dañu feebar a tax sëriñ bi ah euh, li ma ci gis daal mooy ah. fu mel ne suñ dëkkee ñu nekk nga xam ay Touba nga xam ne xale yi euh, ni ñuy solo baax na ak ñi ngi sàmmonteeg yenn yi nga xam ne xëy na mën naa góor ñu feebar wala boog ñi nga xam ne dañoo gaaw a gis seen bopp mm-hmm. Euh, bay tax ñu def yu mel noonu euh, yar boobu nga xam ne am na fa wàññi na lu bare bare bare léegi nag bu fekkee ne bëgg nañoo def lu mel nañ fexe nag ba xam na am na yoo xam ne yu garaaw garaaw la dëkkuwaay yi tamit da da da ciy joué sëñ bi sëñ bi xale bu defoon baal ma de boobu duma dafa am loo xamante ne sëñ bi d'accordul ci gis-gis. dafa waroon sëñ bi dama sëñ bi daal gis-gis la ah. sëñ bi yar yar man man éducation la wax. man éducation la wax. sëñ bi xale bi sax. man éducation xale bi sax bu demoon ba mu def am lu naka su dul noonu. waaye joxul droit. bu ko defee man jàpp naa d'accord naa même xale bu meloon na war a mel ku ko def nañ la sanctionné waaye pour protéger. bu defoon tam ndax ko noonu. pour protéger waaw. pour protéger. xale pour mu bañ àgg foofu. waaw ak ki nga xam ne tamit feebar na wala doy na waar. Hmm. ngir ñëw ñoom ñaan ñëpp ñoŋal leen. Hmm. nañ fexe ba ah. ñoŋal xale bi sàmmloo ko ay cër.